protection ci loi d'amnistie bi nga xam ne il a tout fait pour que mu jàll. moi loi d'amnistie bi man ma position est claire c'est que je suis fondamentalement contre bon évidemment les gens ils vont dire que waaye bon c'est parce que xëy na duggoo kaso xamu méttitu kaso mooy tax quoi mais quelquefois euh, il faut faut que principe yi. Mm-hmm. Euh, prédominer ci le sentiments disons que subjectifs n'est-ce pas. Bon, peut-être c'est difficile à comprendre pour certains. Macky président Macky Sall, parce que euh, il est président, et vraiment, il faut lui donner tout, tout le respect qui mm -hmm. s'y est, mm-hmm. Mm-hmm. n'est-ce pas Pour nous, c'est que nous avons dit, moi, je donne loi d'amnistie pour gagner son corps, avec Diomaye, euh, pour que nous puissions boxer l'élection. C'est ce que nous avons dit, pour que nous vraiment adhérer à la loi d'amnistie. Voilà. Gannaaw, son côté, ci profiter, ñom sétu ñu benen conséquence. gannaaw Sonko da ci profité effectivement mais l'intéressé nee na bëggul nee na bëggul te loi d'amnistie bi évidemment ñii ñaa ngi wax ni que force de l'ordre yi li ñuy def li ñuy def mais li nga xam ne moom laay wax ci par les les morts là d'abord il faut qu'on cherche à trouver les chiffres exacts nombre de morts exact bu ñu xam ko parce que yi ñuy wax yëpp c'est de la spéculation ëpp na non non non ah. moo xëy na sax yes ah, na ko waaw parce qu'on parle de quatre-vingt et cetera bon man personnellement je doute que ce soit quatre-vingt mais nañu def inventaire bi nañu seet kan ak kan la fan ak fan la et dans cette quelques circonstances bu hmm. boobaa ñu xam ni temps la ci ñooñu aussi am na ñoo xam ne si manifestation yi la ñuy dee mais am na ñoo xam ne si brigade gendarmerie lañ dee. wala si commissariat de police. Mm-hmm. ñu def série bi aussi. Mm-hmm. ne ñii si manifestation lañ dee ñii si commissariat lañ dee. ñii mm-hmm. si brigade gendarmerie lañ dee et cetera man dama ne dama d' accord ci moo tax vraiment damay ŋàññi gouvernement bi passé. parce que Sidiki Kaba moo toog ne on va créer une commission d' enquête. pour ñu seet mais jusqu' à présent c' est à dire Euh, loi d'amnistie bi li tax mu métti ma euh, ñaan naa ñi nga xam ne ñoo fi nekk ñu seet parce que xëy man sama xam toog àggul foofu mais ñu seet nu ñu jooyantiwaat loi boobu ñu revenir là-dessus vraiment pour sérieux et faire la différence entre ñi nga xam ne activité politique rek hmm. moo tax ñu jàppale kuy dox nga yore bracelet ñu jàpp tëj la ku yore euh, sa sa portable ñu xool ko gis ne que Euh, image Sonko bon nekk façon yooyu ñu bëri même ñi nga xam ne sax bokk nañ ci manifestation parce que c'est pas c'est pas un délit bu grave boo xam ne voilà war nañ ci mën a tëj ni mmh. kaso sax gis nga sax manifestant yu bëri bu ñu demee ci juge bi juge bi da leen bàyyi mais ñu def la la série par rapport ak ñi nga xam ni danoo am crime de sang mmh. danoo rey nit te ñu ngi fii je tourne souvent un exemple boo xam ne les gens souvent disent tu comme c'est tu insistes beaucoup là-dessus mmh. est-ce que c'est un exemple patent un policier qui est d'un véhicule tireur visé ah oui. quelqu'un ouais. un jeune qui ne tenait que le drapeau du Sénégal et qui l'a abattu froidement. parcelle la woon. e je waaw parcelle la woon donc xam nañu fan la xam nañu ban tali la woon xam nañu fi oto bi gaare woon xam nañu oto bi ban mooy immatriculation bi xam nañu ci ban commissariat la dépendre xam nañu ñaata nit a nekkoon ci biir. xam nañu ku ku ku ku kuy chef de bord bi. Mm. gis nañu alkaati bi wàcc et cetera donc vraiment xam nga policier boobu bu ñu nee mënuñu ko identifier c'est pas vrai. donc il est identifiable et certainement il est identifié je peux dire donc mais bu boobaa léegi mais les gens ils n'ont qu'à prendre les sanctions qui s'opposent parce que d'accord esprit de corps solidarité de corps et cetera mais na lalu si dëgg ak justice ak égalité des citoyens mm-hmm. mais je dis que jamono yooyu sax fekk ni la hiérarchie de la police avait fait preuve d'intelligence dañuy ne lii xam nga kenn mënu ko weddi mm-hmm. parce que boo ko weddi Sénégal yi dañuy ne di fonto mais nga wax ni que effectivement am na lii xew na nii la demee cetera mm-hmm. ñu ngi jégalu par rapport ak mbokk yi ñooñu ñu mu jégalu même par rapport aux citoyens et cetera mais dina tax suba boo amee beneen erreur mais citoyens dinañ am xol sax. jàppale leen comprendre leen et cetera. mais il faut pas surtout que ne askan su jaaxlee ci ñoom la ñuy dem. aussi ah surtout askan bi donc. yow ki nga xam ne comme j'ai dit ki nga xam ne bu jaaxlee si yow lay dem da war a dalal xelam. comme ni ma koy waxee citoyen buy dem ci police il doit être dans le même état d'esprit mm. parce que da am jàngoro. te da ngay yàkkam saa pour mu gis la pour mu mm-hmm. faj la mm-hmm. donc booy dem commissariat nga am soxla war nga yàkkam ci egg foofu mm-hmm. pour que ñu fajal si soxla mais malheureusement citoyens yu bëri bu ñuy dem commissariat dañuy lox parce que dañuy lox dañuy tiit bu ma demee comment on va m'accueillir ah est-ce que sax yëf yi du wëlbatiku ci sama kaw. parfois accueil bi rek problème la. voilà est-ce que bu ma bu ma bu ma témoigner est-ce que sax après man du ma si des seen biir donc. donc il y a ce problème-là. Mmh. le problème d'accueil d'être serviable pour éduquer orienter et accompagner les mhm. citoyens mais loolu amul donc yooyu bokk na si si réforme police yi. parce que da leen koy jàngal école police. Eh mais c'est-à-dire que non peut-être que. buñ la ko jàngalee école police sa jeex na dootuñu la ko. dootuñu la ko voilà dootuñu la stop amul suivi. voilà amul euh, alors ci manifestation yooyu sax président Bassirou Diomaye Faye jël na dogalu ne dañuy euh, indemniser toutes les victimes. mais am na ci famille victime yu ñu ne ñoom ils demandent d'abord justice avant peut-être ay indemnisation ak réparation mais à juste titre c'est que li ma la doon wax ci euh, loi d'amnistie bi euh, yow impérativement revenir sur cette que yow yow yaa ngi nii sa doom par exemple euh, bakkanam des na si mbir mi te mu wóor na ni yow xëy na sa doom bokkul woon sax si manifestation xëy na dafa jógoon këram di liggéey wala mu jugoo ci liggéey kaayam di ñibbi malheureusement il s'est trouver au même au mauvais endroit et au même moment ñu faat ko léegi yow mu am loi boo xam ne dañ lay wax ni yow lii musul am déedéet ah on a jamais y a eu jamais de manifestation fàtte leen musul am non seulement loolu te yow nga doon xaar pour au moins sax pour nga am la tranquillité euh, n'est-ce pas euh, du cœur pour que ñu ne la au moins nii la nii la gaañoo diw la diw la te mais loolu sax amuloo ko donc ñu ne loolu amul yoo xamuloo kan la mais li ci gën a bon aussi ñu ne la boo ko fi wax léegi yoon topp la mais quand pour quelqu'un qui a perdu un être cher c'est c'est c'est inhumain mm-hmm. foofu la nit ñi di wax et cetera. donc tu sais parce que ñooñu duñu mus a. non les textes non les textes les lois les règlements ils ont une froideur boo xam ne. Mm-hmm. vraiment euh, faut pas l'appliquer systématiquement à un individu. qui est de de chair et d'os mhm. n'est-ce pas donc euh, qui n'est pas désincarné donc am na yoo xam ne il faut ko ñu koy seetaan indemnisation boobu mais Batolo Joola am na ñoo xam ne ba léegi jëluñu xaalis ah, ah oui mhm. jusqu'à présent yoo xam ne waroon ñu mën a teg vingt millions trente millions sa loxo mais ils ont refusé de prendre parce que pour ñoom jël ko rek mooy danoo danoo échanger seen bakkanu ñële euh, ak xaalis et cetera quoi mhm. donc yaa am na am na loo xam ne daal d'accord c'est soi mais li gënoon mooy ñu def enquête te weesagul de ñu def enquête parce que loi bi il ñu seetaat ko ba buñ ko seetaatee ba ko je crois que dugg ci loolu mais mais est-ce que est-ce que Sénégal ak suñu constitution ak loi yi ñu tëggoo parce que ba léegi am na ñoo xam ne maa ngi wax ak ñoom dañu naan promulgation loi bi amul am na ñu ma am na ñu ma ko wax je sais pas naan ndax si c'est vrai ou pas. Mm-hmm. ni ne la loi n'a pas été promulguée euh, nu ñu ko def sax publier wu ñu ko officiel premier premier ministre euh, contresigné wu ko et tout donc loolu dese na maa wóor mhm. parce xam nga ni état di doxee ak c'est à vérifier donc côté boobu du ma ci xuus trop mhm. mais tey suñu ñëwee ak ni ñuy tëggee loi d'amnistie parce que man fii def naa fi émission xuloog fi ay nit mhm. man leen Sénégal ñaata loi d'amnistie ñoo fi am ban lañ ci ban lañ ci ban lañ ci abrogé man ne aussi il faut ñu xam loi ci nañ koy tëggee même ñu naan loi organique ñi naan loi organique leen ñi naan lii la ñi naan leen man leen de toute façon ça c'est un débat de de de juriste ak de connaisseur des ci la ma fekkee man ci wàllum yoon dale nañ fi nit en l'occurrence que la doon seen moom mu ne woon ci promesse de campagne Macky bokkoon na ci loi aisance boobu nga xamante ne dañu la ñu kaa defaloon ñu dindi ko te ñoom ils pour ñu dindi ko ah, mais bañ bañ demee ba ci digg ba dañ loi bi kenn mënu bëggu bëgguñu woon jéemuñu ko jënd sax c'est ça le problème. mais mais nag dama d'après ça nag li nga xam ne jot na fee xew